lu ñu woo presse bi ñu toog je pense que ndaw Benno Bokk Yaakaar ba département de rifisque dafa am loo xam ne dafa ñëw métti fii suñu parti bi au niveau du département de rifisque parce que dañoo nekk ay ndaw président Macky Sall nekk est vrai combattant, élection bu ñëw ñu daal di koy jaayante ak ak ak population bi jaayante ko à nos adversaires politiques ñu ko je pense que en 2019 le président Macky Sall a eu 54 des suffrages au niveau de la région de Dakar te ndaw Tëngéej ñoom ñoo ko ko jox en retour ba ñu demee ba toog xoolaat suñu bopp xam kat ñun fi mu nekk suñu leader locaux yi joxuñu benn considération politique suñu leader locaux aussi amuñu ben respect en à notre égard Motax nak tay ñu wo presse bi wo ndaw département de Rufisque tay ndaw yi fi ñew, ndaw yi am na ñoo xam ne tey ñu bëree bëri bëri bëri bëri am nañ si am ñu ngi ànd ak seeni leader mais tey dañoo ñëw si combat bi parce que euh, intérêt combat bi mooy jàppale son excellence le président Macky Sall pour muy am ndam fii au niveau de Rufisque comme ni ñu koy defee saa su ne mais en retour gis nañ ne amuñu benn considération politique amuñu benn récompense politique moo tax ñuy interpeller directement le chef d'État son excellence Macky Sall moo xam ne mooy suñu leader nekk produit bi yoo xam ne dafa neex a jaay ñun nag kat nañ convoqué presse bi waxtaan ak président de la république parce que fi mu nekk nii moom lañ mën a waxtaanal parce que suñu leader yi nangu ñoo déglu de ce fait que nag élection yi ñu jëm mooy élection législative parce que am na loo xam ne ñun euh, jeunesse Benno Bokk Yaakaar bi ñu ngi doon si commencé dox c'est-à-dire ñu boole toute la jeunesse yéen di faire face à nos détracteurs c'est-à-dire opposants yi fi nekk nekk ay ndaw ni ñun jiite dëkk bi mais tay ñu nek ay ndaw président je pense que li war moy ñu jàkkaarloo ak mais pour ñu jàkkaarloo ak il faut que nous yi jox ñu suñu ñu promotion il faut que aussi ñu outé ñu pour ñu mëna ak que le président ñal lañ yow directement élection législative yi ñu jëm su féké tay ndaw Benno Bokk dans bu département de Rufisque lépp lu ñuy laaj amuñu ko dañuy banque suñu loxo ci élection yi ñu jëm je pense que bu amé dina doon gatché fi ci Rufisque

wala ñu tëj seen téléphone ñun sax mënuñ ñun ñun ñu nekk ak ñoom sax mënuñu leen woo ba ba yaa ñuy jël programme bépp bu ñu teg pour luy doxal Tëngéej aussi ñu duñ fa gis donc par exemple encore une fois dañuy demander une audience nga recevoir la jeunesse de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Rufisque ñu toog ak yow waxtaan ak yow jafe-jafe yi nekk Tëngéej ba pare parce que Tëngéej nag gis nañ ne buñ ko waxee ne loolu nag mooy dëgg te loolu on va le dire tey les plus grands projets d'État dafay tëj dafay dafay tëb Tëngéej suñu hôpital baa ngi nii amul rajo amul scanner dans comment dire dans la région de Dakar le président réalisé na 14 autopont tëb nañ Tëngéej te Tëngéej ku xam Tëngéej xam nañ ne Tëngéej amul benn infrastructure de base te loolu lu ñuy dénoncé la ay doomu Tëngéej lañ waaye tamit ay doomu ay ay ay ndaw Benno Bokk Yaakaar lañ te président ñu ñoo la mën a wax jafe-jafe yi nekk Tëngéej